17 novembre incha allah rabbi man jàpp naa ne le 17 novembre bii ñu jëm dañu war a suul définitivement système bi fi nekkoon te ni ñu koy suulee ñun ñëpp xam nañu ko mooy écraser leen effacer leen définitivement écraser leen ci département de Kaolack loolu mooy gëm-gëm Kaolack ku ne xam na problème yi nga xam ne ni moom la ñu munoo nekk. munoo nekk ñu ne yow yaay kilifa wala yow yaay kilifa kër gi yaay njaatige dañuy wax nga nekk njaatige fukki at ak ñaar jëriñoo Kaolack dara tey nga ne surga nga da ngay jëriñ Kaolack dara loolu waa Kaolack waruñu ko sax gëm loolu waa Kaolack waruñu ko sax nangu par xel sax waru koo nangu kon dama ne surga yi nga xam ne ñoo ne si département de Kaolack nañ leen effacé te xam ne jëriñu fi assainissement bi njaatige yi dinañ taxaw si li nga xam ne mooy électrification rurale njaatige yi dinañ taxaw si li nga xam ne mooy yoon yi nga xam ne war nañ leen defar fii si département de Kaolack njaatige yi dinañ taxaw si li mooy wàllu li nga xam ne ni moom mooy euh, abri provisoire bëri si département de Kaolack jigéenu département de Kaolack kenn faalewu leen waaye askanu département de Kaolack kenn ñu ngi nii toog kenn amul xëy kon nag le 17 la ñuy loolu le 17 lañ leen fii jëlee réforme yi nga xam ne war nañ leen voté à l'assemblée ñu mun koo jëmmal projet bi nga xam ne le président de la république son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye jaayoon nañu ko assemblée nationale la ñuy jox une majorité écrasante ñu mun ko doxal Sénégal jëm ca kanam le département de Kaolack jëm ca kanam le la commune de Kaolack jëm ca kanam kon ñun ñëpp xam nañ li ñuy def nañu takkaayu ànd ak suñu mag ñi nga xam ne nii ñooy suñu doole di suñu wéeruwaay jiital jigéen ñi nga xam ne nii tey jii si luñu jiitu bu baax ànd ak ndaw ñi nga xam ne ni ñoom ñooy yaakaar réew mi ñu am une victoire écrasante fii si département de Kaolack le 17 novembre incha allah ñu leen di gërëm di leen sant di jaajëfal journaliste